ma waxtaanee ba pare su ma waxtaanee ba pare ngeen siyaare rawdu yi ngeen siyaare rawdu yi may naa leen bisu tey bi may naa leen bisu tey bi ba dimanche ji di ñëw ba dimanche ji di ñëw ngeen fay si ma ko ngeen fay si ma ko ca projet ca projet ba jërëjëf waaye bala maa nuyoo nag nee na waaye bala may nuyoo nag seen président bi nee na seen président bi ñu ngi koy ñaanal yàlla nee na ñu ngi koy ñaanal yàlla dama toog ñu téléphoné ma ni ma coupé nañ sa kër ca Tëngéej. dama toog ñu ne ma ñu woo ma ne ma coupé nañ sa kër ga ca Tëngéej. ndax sama tur ba tey nekkagut. ndax ba tey turam nekkagut ca. bi ma ko jëndee ba tey. nee na bi ma ko jëndee ba tey. changé gu ma. changé gu ma. kayitu ndox ma. kayitu ndox ma. ak téléphone ba. ak téléphone ba. ci sama tur. ci sama tur. ma ne ko demal nga fayali ma ko. ma ne ko demal nga fayali ma ko. ba mu demee muy trois cent cinquante mille. ba mu demee muy trois cent cinquante mille. au lieu kon mu wax ma ko. au kon mu wax ma ko. waaye da koo fay ba barki démb la ni ma. waaye da koo fay ba barki démb la ni ma. fay naa ko ci sa barke. fay naa ko ci sa barke. may ñaan ci yàlla nag. na boo ko tëlee tamit. yàlla boo ko tëlee tamit. kontaan naa bu baax a baax. xam mos mën naa ko fay. xam nga mos mën naa ko fay. ndax kër ga la ma ko jëndee. ndax kër ga la ma ko jëndee. juróom-ñett fukki million. juróom-ñett fukki million benn mën naa fay mën naa fay juróom-benn fukki junne juróom-benn fukki junne waaye yaa ko fay sa poche waaye yaa ko fay sa poche soog ma ko rendre compte soog ma ko rendre compte te itam am abdol si waxoon te nag dafa am ko abdol si waxoon dafay def ko ku jot dafay def ko ku jot suñ jógee ci jullikaay ba nee na suñu jógee ci jullikaay ba day ñëw sama kër day ñëw këram dajale njaboot bi dajale njaboot bi waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ah. ne leen ah responsable responsable moo baax moo baax waaye surga baaxul waaye surga baaxul ma ne ko prime responsable. ma ne ko prime responsable. ak surga ak surga. muy surga loo ko waxul. mu ne surga loo ko waxul. du ko xam du ko xam. ron la sotala geeg. ron la sotala geeg. indi ndox mi ma jàppal andi ndox mi ma jàppal. surga loolu la. surga loolu la. responsable la responsable nag. day dàkk kilifaam. day dàkk kilifaam. ci li mu bëgg. ca la mu bëgg. defal ko ko ba noppi. defal ko ko ba noppi. rendre ko compte rendre ko compte. jërëjëf jërëjëf. léegi nag action. nee na léegi nag action. ku leen contrôle. nee na ku leen kontooram. del si na ni baal ma na ne baal ma àq. dafa am kilifa gu ne ma woon. dafa am nga may ma ndigal. dama dama nga may ma ndigal. ma tas action. ma tas boole leen ci COSCAS. boole leen ci COSCAS. ma ne ko baax na. ma ne ko baax na. may naa la ndigal. may naa la France. nee ma jóge fi France. yéen ñëpp sama tàgge gi sax yéen ñëpp. nee na yéen ñëpp sama tàgge gi sax yéen ñëpp. xam nga yonent bi tàgge woon nañu ko ci Uhud. nee na xam nga yonent bi tàgge woon ko ci Uhud. Bassirou Moustapha to tàgg nañu yàlla jàpp. Bassirou Moustapha dañu tàgg nañu yàlla jàpp. l'an 2001 mille un sama yoonu njëkk tàgg nañ ma. l'an 2001 mille un sama yoonu njëkk tàgg woon nañu ma. sama yoonu mujj yi tàgg nañu ma. sama yoonu mujj yi tàgg woon nañu ma. wante. nee wante. bi ma ñibbisee laa ko soog a yëg. bi ma yëg bi ko doog a من من دمغوما على جد ماما حتى على لنا الباقي بقاءك ملجان حمولة أد الأخلاق حمولة الأخلاق سيفا دي وي دي وي سيفا دي وي دي حتى على يلا قدل يلا قدل الباقي الباقي تبدل سمو يلا سمو يلا بقاءك بقاءك سجدت يوم منصور يوم منصور xamula ak al axlaaqi xamula ak al axlaaqi nag nga yenu loru mbindeef yi nga yenu loru mbindeef yi ba noppi nag ba noppi nag say fan say di wéy di wéy nee na lu tax nag lima kumtumo lima min deqi jag sawa min deqi jag sawa naiban naiban anil ammi anil ammi ya mansour ya mansour moo tax ma jóg di way moo tax ma jóg di way dafa woo mu ne ma mu ñëw mu ne ko koo sa taaw koo may sa taaw di déqi gerte di déqi gerte wala ngay góob dugub wala ngay nga koy sant moom nga koy sant comme fàtte mooy suñu taaw comme fàtte mooy suñu taaw yow lañ ko jox yow lañ ko jox jag saaw jag saaw ren ren yaa koy déqi yaa koy déqi yaa koy góob yaa koy góob moom woo séeréer sëpp nee na moo séeréer sëpp bi ci ngóob mi woo wolof yeeg woo wolof yeeg waa ndar ndar yeeg waa ndar ndar yeeg waa tëngay yeeg waa tëngay yeeg ñëpp suuf dóor ci gerte gi ci gerte gi midi rek nee na midi rek ma dëkk tool yi ma dëkk tool yi une heure une heure ma góob ma góob ñu def taw fekk ba ma ñëw def taw fekk ba nag ci laa ma sa kaalawoo nee na ci laa ma sa kaalawoo am naa kaala palmaan am naa kaala palmaan boo xam ne boo xam ne complet siidi la complet siidi la soloon ak i bot ak i bot keroog keroog laa ma sa kaalawoo nee na keroog la ma sa kaalawu fekk ko jag saaw ñëw fekk ko jag saaw mu ne ma yaa ngi soog a ñëw mu ne ah, yaa ngi soog a ñëw ma ne ko ba dëkk tool yi bu yàgg ma ne ko ma dëkk tool yi bu yàgg boobu dugub ji boobu dugub ji ki la ko waxee nag lii mu wax ataala lana albaaqi baqaaka maljaan amulan asal axlaaqi sayfan di wey di wey lima qumtumo lima qumtumo min deqi jagsaawa min deqi jagsaawa naiban naiban anil amni ya mansour ya mansour moo tax ma jóg di way moo tax ma jóg di way waaye action bi waaye action bi dama waxoon loolu nag dama waxoon loolu nag ñu dajawaat ren. nee na ñu dajaat ren mu ne suuf sëriñ bi de. action bi def nañ loo xam ne action bi def nañ loo xam ne. man de xam ba amuloon action bi. man de xam ba amuloon action bi. lu ñuy def ren lu ñuy def ren. ma ne ah kon kon pesatoo ko. ma ne ko kon pesatoo ko. mu ne see. mu ne see. ah ñu ma si dolli kay. ah ñu ma si dolli kay. yàlla dogal. yàlla dogal. ñu woo ma Casamance. ñu woo ma Casamance. jumaa joo xam ni. jumaa joo xam ne. Senghor a ko maye woon. Senghor moo ko maye woon. soose yi. soose yi. liggéey ko ba mu raase. liggéey ko ba mu raase. fa lañ mën a yem. nee na fa lañ mën a yem. joolaa yi. joolaa yi. seet seen xarit yi. seet seen xarit yi. ñu yeggali jumaa ji. ñu yeggali jumaa ja. soose yi ni kon nag ñoo jiite. soose yi ne kon nag ñu ñoo jiite. joolaa yi ni ñoo jiite. joolaa yi ni ñu ñoo jiite. toogal waaye parce que damay laq nit ñi waaye <laughs> man tànk gaañ tànk yi ma laq gaañ nee na ndax ñoom amuñu sama juma amuñu sama bu gis ma su may dem juma su may dem juma di gàmmu ji di gàmmu ji dañuy sikkar rek dañuy sikkar rek ma romb leen ma romb leen waaye du ma leen gis waaye du ma leen gis waaye nu gis sama gaañ waaye nu gis sama gaañ waaw ah, waaw dëgg la yàlla dogal nee na yàlla dogal. ñu ne man yow lañ bëgg nga ñëw. ñu ne yow lañ bëgg nga ñëw. atte ñu nag. may la waay may leen wax ji waay. nee na may leen ñu ngi wax ji noppi leen. toog leen toog leen. nee na ngeen toog. baax toog leen. ñu ne ma nag boo ñëwee ñu jubóo. ñu ne ma nag boo ñëwee ñu jubóo. ma xam ne doomu soxla moom. ma xam ne doomu soxla la moom. loo ko dumaate du masala. loo ko dumaate du masala. du daanu du daanu. ma fa ci taalif. nee na ma fa ci taalif. def ci xitaab bu rëy. def ci xitaab bu rëy. ñu daje nag. ñu daje nag. ca ca. kursu ba kursu ba. ma jàng xitaab yëpp. ma jàng xitaab yëpp. ay sharia bi wax. ay sharia bi wax. ñëpp d' accord. ñëpp d' accord. ñu jiital. ñu jiital. soose. soose. teg ci joola teg ci joola bu teye ci ñi bu teye ñi jiite boo liggéey boo liggéey ñi la jiite ba loola moo fa wéy ba loola moo fa wéy action bi nag nekk am na fa action bi nag nekk am na fa duñ ma teeru see nag duñ ma teeru see nag ak seen i sikkar ak seen i sikkar ma ni na nga tuddati Baye ma ni Baye As moo sawar ma ne Baye As moo sawar wante gi ñëw fii ku leen di yóbbu wante gi ñëw fii ku leen yóbbu am góor gu sant Diallo ne ah am góor gu sant Diallo ne ma ah ñun kat ñun kat action lañu action lañu section lañu te section bala ca section lañu te section bala ca sa ngeet fa tabarakallah nee na fa tabarakallah kontaan nañ ci yéen kontaan nañ ci yéen yàlla àggal seen ndaw nag yàlla yàlla àggal seen ndaw ndaw moom ndaw moom loo ko ñaanal loo ko na nga ko ñaanal àgg rek na nga ko ñaanal àgg rek ndax ndaw ndaw la waxu lépp la la la waxu lépp la hmm. wax ñene waay noppi leen ana baas ku waxati génneel ma man loolu ma aw ma jot eh. وكل تكليف نعم وكل تكليف بشرط العقل بشرط العقل مع البلوغ مع البلوغ بدم بدم او حمل او حمل او بمني او بمني او بانبات الشعر او بانبات الشعر او بثمان عشرة او بثمان عشرة اولا اولا زهر زهر كن دوامة نعم كن دوامة وكل تكليف وكل تكليف كيف كل طب جف كيف كل طب جف لو war ورلا لو war ورلا la war sa baay war la bi sarti al aqli bi sarti al aqli da ngay maal buloo gi nag maal buloo gi nag nga jot mag nga jot mag looy jotee mag looy jotee mag bu dee jigéen bu dee jigéen bi demin bi demin bu gisee mbërëg bu gisee mbërëg lu war sa ndey war na lu war sa ndey war na la ëmbee boo ëmbee lu war sa ndey am na lu war sa ndey war na la bi demin bi demin aw xamlin aw xamlin bu dee góor bu dee góor aw bi mani aw bi mani boo gisee mani yu boo gisee mani yu lu war sa baay lu war sa baay war na la war na la aw bi mbaari saar aw bi mbaari saar sa naq sa naq boo amee kawal boo amee karaw

ku dégg ku liggéeyul gaa yi yàlla gaa yi yàlla sa coobare ci sa coobare liggéeyal liggéeyal gaa yi seytaane gaa yi seytaane ci force ci force kenn du libre kenn du libre yéen a yàlla may leen chance nee na yéen a yàlla may leen chance ngeen di ñaqal alhaji Malick ngeen di ñaqal alhaji Malick ak lu bokk ci alhaji ak lu bokk ci alhaji Malick moo tax incha allah nee na moo tax incha allah action bi action bi muy góor di jigéen muy góor di jigéen ku ci bokk ku ci bokk bu torox bu doo torox mukk mukk incha allah ndax xam ngeen ci dara nee na ndax xam ngeen ci dara léegi bay as woote léegi léegi bay as woote du ngeen am sax paas du ngeen am sax paas yéen a ngi ni tey ji daanaka yéen a ngi ni tey ji daanaka da ngeen leblu leneen di da ngeen a leblu leneen di bët yi sax moo lamb poosam bët yi sax moo lamb poosam mottali oto bi mottali oto bi

يشتفقنا يتفقنا يشتفقنا يتفقنا يش يتفق تفقنا نا أوكي بأربعة نفر بأربعة نفر àjjana ci boppam àjjana ci boppam ñoo bëgg ñeent ñii ñoo bëgg ñeent ñii buñ ma bëggee bëgg naa leen man àjjana buñ ma bëggee bëgg naa leen man àjjana buñ ma bañee bëgg naa leen man àjjana buñ ma bañee man bëgg naa leen man àjjana saa imi ramadan saa imi ramadan way wooru weeru koor way wooru weeru koor وتالي القرآن وتالي القرآن الويجانج القرآن الويجانج القرآن وحافظ اللسان وحافظ اللسان أني يوتسن لبي أن يوتسن لبي بنقص أفقر بنقص أكبر ومد إم الجيران ومد إم الجيران فك سمر قر فك سمر قر ما أمل دارا ما أمل دارا نبتك خيول نبتك خيول أجنا نينيان أنت أجنا نينيان سيما نبي سيما نبي نبنالن نبنالن سيما نبل سيما نبل نبنالن نبنالن تنجوني تنجوني دان دوك سمبي دان دوك سمبي فانجرجل جب فانجرجل جب جزيتم جزيتم خيرا خيرا وكفيتم شرا ويعطيكم خيرا وينصركم نصرا نصرا نصرا نصرا نصرا تملم تملم تملم